ñi koy def euh, ñoom la ñu dénkoon askanu Sénégal ñenn ñi di dagan baatu askan bi pour ñu jox leen nguuru Sénégal ñoom ñoo pamti pamtee suufa Sénégal ñoom ñoo akimu suufa Sénégal ngay digg ay nit ay hectares. président waxoon na ko moom absolument waxoon na ko président Macky Sall mais ay hectares. nga di dégg benn nit ñu jox ko ay ectare sur le dos des sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi toog amuñu fu ñu dëkk nangu yenn suuf yi jox ko ay italiens it ay chinois kii n'importe quoi. ay indiens je pense que mbir mi toll na foo xamante ne ji sénégalais yi nee nañu ne lii bu mu fi yam nañu dem ba leeral mbir mi yëpp et puis opération gox bi ñu doon wax aussi ne sénégalais lii moom muy suuf si muy muy gàncax geeg yëpp na dinañ ko delloo sénégalais yi damay tàmbali ci ayoba ayoba euh, carnage foncier bi am. nga dégg président de la république jël ci ay dogal ñu tudd ci ay turu nit ak ki autorité muy maanaam pàccoo goo xamante ne pàccoo bu doy waar la ban jàngat nga ci am. xam Mass dañoo nekk ci benn dëkk bu ñuy wax Sénégal depuis primaire da ngay jàng ñun la superficie bi cent quatre-vingt-seize mille xaw ma nàngam nàngam kilomètres carrés. Mm-hmm. donc c'est un état un état de droit. depuis 1960 am nañ suñu indépendance. Mhm. ñu tabax un état de droit Senghor jaar fii Abdou Diouf jaar fii Abdoulaye Wade jaar fii Macky Sall jaar fii ba tey ji euh, président Bassirou Diomaye Faye ñëw toog état de droit boobu dafa mel ni euh, dañ ko doon état de droit bi dafa mel ni concept de façade la rek. Mhm. Euh, mais mosuñu yegg ci njomboxtal gi maanaam ñu teg benn état boo xamante ni mhm. sénégalais yëpp dañuy bokk yem benn à égalité de chance ci lépp ba ci suuf si nga xamante ni euh, fi la ñu war a fi la ñu war a dëkk te état bi warloog sénégalais bu nekk toi bi nga xamante ni fa la war a fa la war a fa la war a dëkk wàllum suuf dafa doon euh, sujet bu sujet bu daa doy waar bu sensible euh, parce que souvent day day attiser ay ay ay ay conflits yu ay conflits yu ay conflits yu yéeme mhm. bu mën a dem sax ba ci ay ay conflits xeet ak xeet Euh, donc ba tax na euh, lii ci xew nii Sénégal entre te te commencé wul ci régime bi commencé wul ci régime mu Macky Sall c'est c'est c'est bien avant régime Ablaye Wade bi aussi il y avait énormément de problèmes fonciers loolu li ko indi mooy euh, suñu état de droit bi sooxe gi mu sooxe ba borom doole yi mën a jël lenn ci suñu alal wala ci suñu suuf di ci def lu leen neex mm-hmm. te bu ñi néew ñi gën a néew doole bu ñu demee ci justice justice du leen euh, mënu leen mënu leen mënu leen jox seen àq. absolument ak seen ak seen ak seen yelleef. Mhm. Euh, ñii nag bi ñu ñëwee di euh, wut nguur gi li ñu jaay sénégalais yi mooy dañuy redresser d'abord l'état de droit. Mhm. nga problème yi ngay wax nii foncier et bu ñu amoon état de droit bu taxaw. bu taxaw tout serait réglé. Mhm. état de droit bu taxaw ak ay textes yoo xamante ni président bi bu. justice ne sàngam président munu ci dara dañ koy dañ koy def loolu suñ ko amoon Sénégal bu yàgg kon problème suuf ñuy wax nii tey duñ fi duñ fi duñ fi agsi mhm. mais suñ fi agsee tey jii c'est parce que président taxaw na fi ni euh, moom plainte yi ñu koy indil li ci ëpp mhm. ay problème foncier la mbirum suuf la un président normalement tu es l'homme le plus renseigné du pays mhm. les services de renseignement sont là pour toi chaque jour ñu lay jox bulletin Euh, ngay ngay ngay jàng lan moo xew ci sa réew boo demee ba am information yooyu quand nga jàkkaarloog askan bi wax leen ko li askan bi xaar pour man mooy nga wut ay saafara parce que yow yaa demoon dagaan seen baat mhm. ñu jël seen baat jox la cest di problème bu laal sénégalais bi gën a tuuti daf la war a concerner daf la war a préoccuper da mhm. nga cee war a def sa kem kàttan bi sénégalais bi dund ci fongale mi nga xam dafa néew doole mhm. mu am problème sàngam yow danga war xar sa tànk tubéy ba problème boobu saafara wu parce que moo tax ñu teg la foofu nga ñu doon teg. est-ce que bokkul ci conc bi aussi. non hmm, loolu maa conc bi maa ngi ciy conc bi maa ngi ñëw mais balaa boobu. Hmm, hmm. dafa dafa jot ay information ñu ne ko problème foncier yi moo gën a graaw Sénégal soo jotee information yi mel noonu en tant que président de la République tu prends des tu prends tes pour man. ok ba nga def sa kéem kàttan ba loolu nga xamante ni gis nañ la ko comme problème. nga lijjanti ko parce que euh, mënoon mën na yegg ci ay ay ay dimension yu. graaw a graaw doy waar parce que problème voilà mm. gis nga problème euh, kaa kaa kaaw ndengleer bi ak vraiment euh, lépp problème yi ci am ci ginnaaw yëpp mm-hmm. donc euh, bu ñu bëggee lijjanti encore une fois ce problème la maas mooy dañuy redresser état de droit bi mm-hmm. président bi dootul jar sax muy taal otom di dem ba mbuur kaat mm-hmm. pour lijjanti ay pour wax diw ak diw am na treize hectares diw am na quarante hectares six cent hectares les services compétents de l'État mais les services compétents de l'État mhm. doivent le faire à sa place. ju jar sax mu yegg ci président de la République bu ñuy am état de droit laay wax de. Mhm. Mhm. moo tax problème kenn du ko régler euh, par le par le par le par da ngay ñëw ba ci bopp bi nga koy régler non ci tànk yi ci racine bi nga koy régler. président bi day fexe ba état de droit bi taxawaat jub xocc. ok moom mu exercer pouvoir am ci exécutif bi. bàyyi justice bi mu exercer pouvoir am. le pouvoir législatif muy assemblée nationale. ñu def seen liggéey. de surveillance. ok mais mais li président def aussi c'est à saluer. non mooy li ma la wax. arrestation ñu arrêté lépp li nga la. voilà c'est un pas hmm? c'est un la. wax euh, Mbour 4 mais li fa xew. ñu ñu bi ñu génn di information. am na yeneen yu gën a graaw Mbour 4. Ah c'est un c'est hmm, hmm. boo xamante c'est un pas boo xamante ni def na ko te dafa doon lu urgent boo xam parce que Mbour boobu du tey xam nga lañ ci tàmbalee wax euh, dañoo déclassé. forêt bi d' abord loolu d' abord environnementaliste yi jooy nañ ko ba pare. Mhm. dëkk bu mel ni Thiès ak euh, li fa am euh, ci ci xeetu climat yooyu noonu nga jël espace vert boobu nga déclassé ko pour mhm. nit ñi tabax fa déjà loolu c' est un problème. absolument nga déclassé ko ba pare nga jël ko jox ko ñoo xamante ni sawaay say say say ñooñ lañ. ñu paajoo ko ah. ku ci nekk am ci ay hectares yu bari. <laughs> alors que population les populations les plus démunies de la ville de Thiès. Mm-hmm. nga xamante ni boo bu jëlee Thiès euh, sur le plan démographique c'est la deuxième ville. Mm-hmm. au Sénégal après Diourbel moo ci topp. ñooñu euh, trois hectares nga leen ti jox. trois hectares. Mm-hmm. mu am ñoo xamante ni c'est de simple tiers. ay hommes politiques ñi am treize hectares. ci am vingt hectares ci am hectares. lu ci gën a gën six cent hectares. waaw six cent mais loolu en fait six cent hectares xam nga. xam nga 600 hectares lan la. ah 600 ah, hectares ça lay. c'est-à-dire si fee. 600 parcelles su fee 600 parcelles ou 600 hectares. non non non 200 hectares. Mhm. am na ku ci am 200 def naa 200 xaw ma ñaata hectares. 200 mhm. hectares c'est 200 plus de 200 hectares c'est c'est presque la principauté mhm. nga jël ko jox ko benn nit. mu war koo tabax wala mu war koo jaay sax gars noonu la ñuy def duñ duñ ko tabax léegi dañuy xaar tuuti rek enchères yi jóg ñu jaay ko. Euh, jël ay deux cent million trois cent millions dugal seen poche. Mhm. après dem. donc président pas boobu mu def. c'est un pas mais li gën a li koy gën a noppal pour man mooy li ñuy waxoon ni dañuy redresser état de droit ci seen priorité la bokk ñu redresser ko tëggaat ko ba bànqaas yépp di dox. Mhm. surtout bànqaas yépp di dox. administration justice. Mhm. bànqaas yépp bu ñu doxee yii yépp. dootul dootul dootul dootul amati. suñu ay problème la yoo xamante ni suñu suñu suñu ginnaaw lay nekk. Mm-hmm. mais mais mais du mbuur kat rek ah. non du mbuur kat rek littoral littoralu géejewaay gii. littoral bi xam nga mais bi li ci li dañuy agressé environnement bi loolu mooy gën a garaaw ci problème foncier yi nekk Sénégal dañuy agressé environnement bi dañuy fekk foo xam ne fii waruñu fa tabax ñoo fa di fa tabax. Mm-hmm. ci wetu géej géej yooyu noonu forêt yoo xamante ni dañ ko vraiment dañ ko war a préserver. Euh, pour le bien de l' environnement ak suñu suñu suñu dund ñu changement climatique yi ñëpp xam nañu ñu xam nañu effet yi mu commencé def. Mhm. mais nga jël ay forêt déclassifié leen ba pare may nañ ñu dagg garab yi. Mhm. ñoo di fa tabax ay cité ak yooyu noonu. Mhm. Euh, vraiment fi bu ñu bàyyee noonu mu loolu mu persévérer nii. Euh, Sénégal fi mu jëm moom. parce que ñi tey jii ki ki. doon dëkk boo xamante ni da yomb ñu fi. ñu fi nooy dafa njiite woon impôt domaine. xam bu baax suuf premier ministre bi Ousmane Sonko xam lu baax ci suuf. loolu mën nañu dimbali lu bari. dimbali absolument ci ci naka la ñuy résoudre en urgence. Mhm. ces problèmes là parce que nag c' est un parce que ñoo am na ñoo xam dañoo am titre foncier. Mhm. titre foncier état du ñëw rek nangu ko ko amoo pouvoir bi. absolument tu n'as le pouvoir da leen di dédommager soit da leen di dédommager te boo leen dédommager xam nga. Mhm. dafay dafay dafay a dafay xaw a métti ci boo xam ne am na yeneen priorité. mais li ma gën a contre man par exemple. mooy titre foncier yi ñuy attribuer à des étrangers. fii suñu fii si suñu fii suñu dëkk. ay hectares nga jox ko ay. chinois ki indien ki. man mun naa comprendre nga jox leen ay terre bu fekkee dañoo am ay projet mhm. agriculture et truc mais duñu dootoo ay titre foncier quand même. ok mun nañu exploiter après bu ñu paree ñu delloo ñu suñu suuf mais suuf Sénégal pour man sénégalais yi la. ñoo ko moom merci merci merci Ayoba euh, ma ñëw ci Matar Ndoye ah sëñ Euh, euh, bien que sénégalais yi leen metti aussi mooy ñi ñu ciy tudd ay boromi tuur la ñoo xamante ne tey jii dañ leen dénkoon ay poste ministériel ñoo xamante ne tey jii amuñu problème mu ndékkeek añ reer sénégalais yi mettre leen dans de bonnes conditions euh, kaddu gi